AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV rahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wa shalhu dakiran wa shakiran abada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 Eh, di sàkku tay nag képp ku jot xikma bi nga tasaare ko nga jotle ko sa mbokkum jullit ku ko def ñoo ngi ñaan suñ borom dimbale la te sutural la te dimbalal suñ borom ak suturaam rek moo am njariñ Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu daf daan wax ne ku suñu borom dimbale kenn du la mënal dara kum suturaal it kenn du la xamal dara eh, ñoo ngi leen di joxe xikma bi nag fii ci Euh, maxat xikmatul yawmi li tarbiya al islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadou Mourtada Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy laabirante ci sunu biir ndax euh, ñoo ngi toll ci njeexintalu atum tubaab maanam ci ay fanam yu mujj ko defee yooyu am na ay xew-xew yi ci faral di am xew-xew yoo xam ne nii eh, àdduna fonk nañ ko lool léegi nag lan moo ci taxawaayu ab julit taxawaayu ab jullit de du ci lenn loolu wattandiku waaw wattandiku rek ndax eh, loolu du yëfi jullit muy feeti 24 décembre ak 31 lu wat daw lu mat a daw la nag li tax ñuy wax nag mooy ñi nga xam ne nii léeg-léeg nga gis leen ñu nekk ci mbir sax te ñàkk xam moo leen cay bàyyi ñooñee nag ku leen laabiré bu ñu xamee mën nañoo dellu gannaaw te àdduna bi lu mu fees fees ak caaxaan rek lu tee ñuy wax la Seydina Ali Ali ibn Abi Talib waxoon rek ñi nekk ci dëgg buñ ne pat ñi nekk ci ay caaxaan dañuy mujj defe ne ñoo ne ci dëgg xiina sakata ahlul xaq an il baatil tawahama ahlul baatili annahum ala xaq loolu moo tax ñuy wax te it euh, dañuy wax ne ku xamoon pas-pas bi lal 24 ak 31 décembre da nga ko wattandiku en tant que jullit pas-pas bi ko lalkat du dara lurut ñi koy def dañ ne 24 décembre ci la doomu yàlla judd wala yasubillah 31 décembre ci lañ koy ngénte loolu nag naka la ko ab jullit di xamee di ko déggee noonu ba noppi di ko cautionné waxuma la waxuma ak di ci ànd ak ñoom di ko feete loolu képp ku koy def war nga seetaat sa diggante ak sa borom ah eh, yépp ñoo bokkoon loo leen fi andi te mooy nit ñi nañu wéetal yàlla te jaamu ko seen diine itam benn la xëy na barab yi ñu daan wàcc ak jamono yi ñu daan wàcc ak nit ñi ñu daan wàcc ñoo daan wuute waaye ala kulli xaalin principe bi benn la woon ñun jullit ñi it suñu borom tabaaraka wa taala digal ñu gëm yonent yëpp waaw laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli waaye la fa woon yonent yëpp la ci yonent yàlla aadam ba ci yonent yàlla isa alayhi salaam bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñëwee dañ ko booleel seen diine yooyu yëpp ak seen woote yooyu yëpp ak seen téere yooyu yëpp ah, jox ko ko muy lislaam ak alquran moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mas naa fekk Omar ah, Omar ibnul Xataab muy yër benn fooy bu bokk ci tawraat yonent bi kanamam soppeeku ba koo gis xam ne kanamam soppeeku na mu ne yow Omar giñ na ci yàlla mi nga xam ne ne sama bakkan mi ngi ci loxoom eh, ne Muusa bu ñëwaatoon du def nen rut nii ngeen def te mooy ànd ak man topp ma moo tax euh, mboolem yonent bu fi mas a ñëw rek balaa dem wax junj na aw nitam ne am na kuy ñëw koo xam ne nii moom mooy xaatimul ambiyaahi wa imaamul mursalin te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñëwee na ngeen ko topp kon yonent yi amuñ ak réeroo amuñ timit ak xajaloo nit ñi ñoo wàcc yoon wa kon nag Euh, looloo waral sunu borom tabaaraka wa taala bi mu gisee nit ñi kat ñi ngi wutal seen bopp ay diine mun leen nag inna diina indallahi islaam moo tax lislaam bi mu ñëwee dafa mansuuxal yooyu yëpp euh, diine yooyu yëpp ak téere yooyu yëpp ak woote yooyu yëpp sunu borom tabaaraka wa taala dugalal ko ko ci biir lislaam kon nag pas-pas bi nga xam ne ni moo lal 24 ak 31 décembre jullit bu ko xamoon da nga ko wattandikoo ndax dafa dàqoonteeg xiit dafa dàqonteeg wéetal suñu borom tabaaraka wa la lépp bokkaale la eh, am na ñoo xam nag dañ naan mm, bu ma ko defut sama njaboot dañ koy wuti feneen wala njaboot gi njabootu kanaara la wala njaboot gi dañ ko bëgg moo tax ma koy def loolu aw lay ak njaboot mënoo leen a eh, eh, jur di leen dundal yilif leen ba noppi ñu doonaat say kilifa loolu mënta ne Euh, mënta nekk jullit dafa war a xam lan mooy masuliyaam lan mooy responsabilité am te xam ne day yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu wax bokkut ak niñ ko jàppee ndax dane kenn ku nekk ci yéen ab sàmm nga te bu ëllëgee suñu borom dana la laaj sag caawoo kullukum raain wa kullukum masulun an rahiyati kon bu ëllëgee ñu andiwaat ci leneen lu gën a yaatu ci 24 décembre ak 31 décembre lan moo ci taxawaayu jullit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 nga toj ko jot ci buy ba buy baa lay jariñ kon wuy bi ñëw na gaa ñi leen toj ko bañ mën a jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñi màcc ñi nottane ñi njambaan ko ku féete woon naa nit na ngeen seggal ko in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh